mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw yéen ci mbiri litige foncier bi doxoon ci diggante Babacar ngoom ak askan ba yeewoo foofee ca Ndingler comme ni ko tubaab bi di waxee tout est bien qui finit bien ginnaaw ay fan yu bari bi coow jógee dox ci diggante Babacar Ngom Sedima ak cultivateur ya yeewoo ca Ndingler jamono ji kii di Babacar ngoom mu na bàyyi mu sedd loole ginnaaw ba askan ba wàccee sa mbedd ya dal di amal ay sortie médiatique ngir ñaawlu jaay doole gi nga xamante ni jàpp nañ ni kii di directeur bu Sedima bëggoon na leen koo def maanaam bëggoon a nangu seeni suuf yi nga xamante ni moom rek lañu am ngir di ca bay jamono ji nag askan ba yeewoo ca Ndingler commencé waat nañu afficher la sourire ginnaaw bi ñu yegee annonce bi rek di wax ni Babacar Ngom bàyyi na affaire bi mu sedd xibaar bi nag site internet bii di Yerim Post ñoo ko siiwal niki altine gi nu génn litige foncier bi nag doxoon ci diggante Babacar Ngom ak askan ba yeewoo ca Ndingler ba coow li tàmbalee ak léegi war na toll ci ñeenti at waaye jamono ji rek la siiwoon baykat yi Ndingler nag la leen métti woon te titaloon leen moo di kii di Babacar Ngom dafa bëggoon a jël lu toll ci quatre-vingts hectares ci seeni suuf daat koy yokku ci ay terrain yuñ ko joxoon ngir mu mën fa amal agro business am bu nga xamante ni mu ngi koy def maanaam ab usine KFC la bëggoon a implanté waaye nag bu ci ki nga xamante ni moo di Babacar Ngom di directeur bu Sedima nee na suuf soosee daf ko am ci ay anam yu jaar yoon te loole la koy firndeel moo di amoon na document yu légal yépp ñu ngi woon ak moom fii lañu yam ak yéen jërë ngeen jëf